Euh, maa ngi lay gërëm ci question boobu alors surtout que moi-même bokk naa ci avocat wu Babacar Touré euh, ba tax na ni peut-être que mënuma ci sori trop par rapport au fond. Mm-hmm. mais euh, tey lu ñu seetlu mooy en de Babacar Touré jàpp nañ tamit ay yeneen journaliste ñi nga xamante ne ñu ngi si ay kuréel yi nga xamante ne ñu jàpp ni ànduñu ak nguur gi. gis ni tamit euh, Sénégal ñëpp ñi nga xamante ne aussi ñi ngi ci ay parti politique wala du yëngu ci mbirum citoyenneté te nguur gi jàpp ni àndul ak ñoom ñoom ñëpp fu mu nekk nii euh, ñu ngi leen di téye di jàpp di dugal kaso te loolu su amee euh, je pense que kenn mënu ko rafet et loolu su amee tamit day mel ni démocratie ak liberté yi ñu ngi koy nasax te ma jàpp ni aujourd'hui soo xoolee ci lu ma dëgg parce que am na au moins euh, trois ak quatre centaines de personnes yi nga xamante ne jàpp nañ leen ñu ngi ci biir kaso yi kaso yi fees nag tel te dëgg naa ni sax euh, même paquetage bu ñu doon ñaawlu ñun waa Amnesty euh, léegi amatul parce que nit ñi su ñu nekkee ci kaso yi mënatuñu tëdd sax di nelaw dañuy taxaw donc aujourd'hui kaso yi fees nañu tel jëlaat aussi des citoyens yi nga xamante ne wax dëgg si yàlla même bu dee dañ jàpp par rapport au principe qui gouverne les procédures wala leen mën a convoquer entendre leen yooyu war nañ ko mën a nangu ci démocratie wala dans un état de droit mais war nañ leen mën a aussi bàyyi ñu dox seen soxla ba jour bu di yoon taxaw jàpp nañ ñu leen toppee am na mhm. te bu ñu bu ñu mel mbir yu mel nii dans presque quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas dañ lay la en garde à la Euh, placer la sous mandat de dépôt très souvent six mois yi su jotee ñu bayal dossier bi am suite dossier bi naxa naxasaay loolu nag lu muy nirul loolu lu muy nirul mooy euh, du euh, volonté de justice moom motiver démarche yu mel noonu sax dafa mel ni dañu bëgg a faagagal ay citoyens wala noppiloo leen wala intimider leen pour ñuy def procédure mel parce que normalement dans un état bu nga xamante ne qui se dit sérieux ne day respecter ak ak yelleef doomu aadama eh bien suñuy jàppee ne yow def nga li nga xamante ne dafa dëppoo ak yoon dañu war a dem ba sës mooy dem ba jugement mais si cas yu mel ni mm-hmm. nee naa la man par rapport à mon expérience d'avocat ça fait maintenant après euh, vingt et un ans avocat yu mel noonu du dem fenn dañuy après dossier dañ nelaw si tiroir yi loolu nag ba dëgg yàlla mm-hmm. kenn waru ko mën a rafetlu te Sénégal tey toll nañu fi nga xamante ni euh, il est important que apaiser tension yi apaiser tension yi parce que euh, ñu ngi dem vers des élections wala l' élection présidentielle de 2024 te tant que réglé ñu yenn question yi euh, ressentiment population yi mun na tax benn étincelle rek dëkk bi takk te kenn ñaanu ko yàlla